sëñ bi tur bi ak sant bi ginnaaw buñ la nuyoo mu joob Jawbe tey ndax mën nga ñu dikkalaat ci mbir mi nga xam ne moom moo xew fii ci diggante kër sëriñ Abdou Lahat ak kër sëriñ Fallou mooy sance boobu nga xam moom lañ ci amal ba ab tuyoo jotoon fi bënn euh, mel ne am na ko ci loru ginnaaw ñu la nuyoo nga dikkalaat ñu ci. waaw man maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi tudd Modou Jóob Jawbe. chargé de la sécurité et de contrôle de la ville Sainte de Khoudamoul Khadim yàlla dogal na nag ki faatu sama doom bàjjen la. Euh, waajuram bàjjen soxna Samb moo sama baay ñoo bokk lépp magam a ngi nii ci oto bi Xadi Faal mi mooy magam mooy Kamal Faal di seen mag yàlla dogal nag mu xawoon a wér di xel waaye sànc bi nga xam ne moom lañ def ci yoon bi nga xam ne moo jëm ci yoonu jumaa ji euh, jëm fi nga xam ne mooy marché Ocass bon gas biñ doon gas yaakaar naa dañu laal benn tuyau muy ancien tuyau yi nga xam ne mooy tuyau yi fi njëkkoon a nekk pax mi nag rëy ndox mi génn yaakaar naat te sécuriser wuñ ko nañ ko war a sécuriser ba tax na moo tax euh, moo tax soxna si tàbbi ci ba ñàkk bakkanam tey ji lañ tey ji lañ koy denc gannaaw taakusaan euh, mu ngi tuddoon Ami Fall mi ngi amoon euh, juróom benn fukki ak juróom soixante cinq ans yàlla dogal dafa war a di woon wér di xel waaye nag ñi ngi koy jébbal boromam fii ci jàkkee Daaru Xudoos ñi ci waroon taxaw muy muy sapeur pompier tax ñi ngi ci taxaw monsieur le maire Latka ak délégation ñëw xool si ko waa ñi nga xam ne ñoo yor wàllu ndox mi muy waa OFOR ak waa hydraulique ak ñi nga xam ne ñooy wàllu ma waa maaw rahmati ñi ngi jël seeni matuwaay pour indi ay pompe yoo xam ne danañ mën a pompe ndox mi léegi léegi nii boo ko defee ñu jéem a sécuriser fi nga xam ne lié la boo xam ni xale yi ndax dañuy bañ keneen ñàkkaat ci bakkanam wala keneen defaat ci accident ba tax na eh, ñu war ko sécuriser buñ ko sécuriser pare nag eh, yàlla dogal ñu manque ndox mi jéem bu bousee waat tuyau bi bu ko defee jéem a àggalewaat sànc bi loolu mooy li nga xam ne mi ngi mi ngi am ñi ngi ñaan ki nga xam ne moo ci wàccu liggéey yàlla xaare ko àjjante yeexeñu moom yàlla du ko topp dara sax xam nañ ni waaw waajur moom it fi nga xam ne fi la nekkoon muy muy bàjjen soxna Samb ak njaboot gu jigéen dong la ñam Kamal Fall moo nekkoon seen seen mag bu góor ca kër ga wàcc na liggéey ay jigéen ñi kese ñoo fa nekk ak sama bàjjen yàlla dogal na Ahmadou Ndiaye ngiraan mi seen mag mi nga xam ne moom lañ magale kër ga mu yor kër ga yëpp taxaw na ci taxaw bu am solo jokkoon nañ ci ba police def na ci li mu war a def euh, euh, ñi ngi sant procureur bu Mbàkke bi nga xam ne signé na dossier kayit bi fi saasi ngir ñu mën a jot koor bi ñi ngi sant waa hôpital bi nga xam ne joxe na koor gi tey ji lañ koy denc ci gannaaw takusaan ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek ni loolu mooy li nga xam ne moo xew fii ci Touba en face grande mosquée de Touba